ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy mhm. nga yónnee am Maodo am Cheikh wi jaar moo mata am ku am am nga yónneen am Maodo am Cheikh mi nu doy yàlla yónneen Cheikh Tidiane ak Maodo sëy ñoo tànn mbay naan siis ba ngoogu toogal yaa doon xawsu bu tey may ku ko am am nga yoneen am Mawdo am Cheikh mi nu doy ku ko am am nga yoneen am Mawdo am Cheikh mi nu doy waaw naan ko siis ba ngoogu toogal yaa fu doon xawutu bu tey say di mbay du moroom moo mata am moo mata roy moo fu teg tey ñaari tànkam ci sunna si bu tey mbay ku ko am am nga yónneen am Maodo yi ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy waaw Seydi Mbaye Sy du moroom moo mata am moo mata roy moo fu tey ñaari tànkam ci sunna si yoneen bu tey boo xamul mbay moo siis bi yoneen daan tooge mooy alquran ak xadis jublu ci am yàlla fu doy bay si ko ko am am nga yoneen am Mawda am Cheikh mi nu doy ku ko am am nga yoneen am Mawda am Cheikh mi nu doy waaw bokkamul mbay moo fu yor siis bi yoneen daan tooge mooy alquran ak xadis jublu ci am yàlla bu doy Seydi Mbay Si géeju xam-xam ku fu naw say téere tey boo dajeek mbay sukuraam nan du bëree xeer kenn du mbay mbay si ku ko am am nga yoneel am mawda nu doy ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh mi nu doy waaw Seydi Mbaye Sy géeju xam-xam ku fu naw say téere tey boo dajeek mbay sukkuraam nen du bëreek xeer kenn du mbay am na xam-xam am wilaaya am diraaya ami may li ko buur laaw defal an ko ni